groupe parlementaire bu war a proposé ña fay dem man kenn rek kenn du ma di waxee assemblée te maa nekk dëgg parce que man kenn maa bëri wax bii nag immunité parlementaire nañ mi député bu dee session la nekk pour nga def immunité parlementaire da ngay dem plénière moo koy levé bu nekk nekkee hors session bureau bi la ñu ëmb levé ko mais ñu ne ñu ne sauf en cas de flagrant délit député bénéficie d'une immunité parlementaire d'une immunité parlementaire booy malaanu kiiraay bu def flagrant la léegi la mooy flagrant délit ci lañ nekk nii xam nga en droit lan mooy flagrant délit mooy délit bi ñu ne mu ngi soog am wala poursuivi par la clameur publique ah, attention gars yi. kon du délit criminel wala du délit criminel wala délit correctionnel. lu mën a doon déglu ma lu soog am ci infraction bu ñu ni am na ñu ne wala démb la mais coow laa ngi topp mu ngi law day soog am li li ñu am ndax mi tuuma tuuma tuubal am na mooy tuumeel am na affaire bi seddagul li ñuy wax poursuivi par la clameur publique. ndiiraan parce que man dama jàng droit privé judiciaire xëy na ci affaire la def man dama wu ci ci pénal la. mun nañu bëgg nga tojal ñu ko. moo tax man mais kooku bu bëggee mën naa joxe définition bi. mais même major xam ne li muy wax. tojal ñu ko waaw waaw définition bi en français. major continuer ma continuer. waaw flagrant délit mooy le crime qui se commet ou qui vient de se commettre. et dans un temps relativement voisin de l'action le présumé auteur est trouvé en possession d'objets ou présente des indices mais voire même est poursuivi par la clameur publique. voilà donc li ma résumé ci olof. loolu la wax dama ci tubaab. mooy bu fekkee ni affaire day soog am wala mu ngi nekk di am dañu fekk la ci affaire bi wala muy soog a am. waaw pour ñu avancer damay reformuler sama question ndax ndax lii fla ndax lii flagrant délit la maître wala wala affaire criminelle ñu continuer. if même délit même crime mën na nekk flagrant délit crime bi if dafa nànk. le crime flagrant existe comme le délit flagrant. Mhm. crime yow if yow xam nga yow da ngaa affaire bi. da ci for da ci for ay affaire rek. jàng naa ko de nañ dem waaw mais xëy na kon sa ñaa ngi des na foofu. nañ dem buñ demee ba si kanam naa la wan ne jàng naa ko nañ dem donc crime ak délit bii soog a am. Mhm. di nekk di am. Mhm. ak bii soog a am léegi temps voisin de l' action. wala mhm. poursuivi par la clameur publique. mooy coow li bi nga amee. coow laa ngi law. coow laa ngi law ñu naan moom laa du moom sonko du sonko ko ñu ci flagrant délit. ci nee nañ bi mu amee ci tànk tànk bi. ab oto wu ñëw jël xale bi yóbbu ñu def prélèvement bu xëy déposé plainte bi ñu oo ñu oo Sonko kon jëf la grande ndax indi na ay indice un faisceau d'indice concordant bu ne fa ma doon liggéey lañ ma fekk indice la guddi la ma fa fekk kuy wut fër indice la troisièmement tëm naag man indice la quatrièmement sphère bi mu ngi nii indice la turam diw amul x identifié la personne est identifiée xam naa jëm tudd am naa numéro téléphone am yëpp oote na avant mu ñëw moo sa dégg naa mu naan nañ xool SMS da moom dafa ne oote avant mu ñëw moom mu tourné affaire benn SMS la envoyé yëpp ci manipulation nit ñi ma ne xool SMS appel ñoom bi appel bi nga xoolee nee nañ Sonatel xaw ma opérateur téléphonique ñeneen ne moom mu ngi woon ci abord yi affaire géolocalisé waaw loolu dégg naa ko ci indice waaw léegi kat moom moo tax mu loolu tax ma ne ba ma demee dañu may defal mandat dépôt moo xam ne tax mu tudd mandat dépôt mbadde bu fekkee ne man defuma dara ci flagrant délit moo ni député bi bu dee mais Bougazelli maa doon avocat bi Serigne Naar Fall Bougazelli mais mais immunité parlementaire bi kenn levé ko dañ ne ko jàpp ay faux billets après mu dem. këram après dem hôpital am diabète tëdd ñu ne nangu ñu ne dafa daw nangu wisi man maa ànd moom yóbbu ko di député la maa ko yóbbu ba ci section recherche bii ñu woote Ousmane euh, Ousmane Ousmane Sonko te newul ne man ku ma jël si naa taali waa Guédiawaye te attention <laughs> lam am way <laughs> defe naa ñeneen amuñ ko sos seen dëkk le lion de Guédiawaye se c'est Seydina Fall Bougazine mu ne taxaw ne maa ngi ne gën ma fekkee da ngeen ma rey wala rey sama militant yi Guédiawaye mais du ñëw mais dafa ne ma yow laa bëgg avocat ñu wax ko dàkku ci ay conditions ñu daal ànd mu yóbbu ko section recherche. waaw maître ñu ñëw ci ci ci unité parlementaire vraiment yow dama lay continuer yaa ma laaj wala bu ma laajati ma yoo xam ne dama fii nga yem ci tontu bi rek moo tax quoi d'accord kon man dafa bu ma di doon. dama ni. Bouga Seydi dama jox exemple concret. Mm-hmm. Seydina Fall Bouga dégg naa ñu bëri nii moom nangam ni dafa bokk ci pouvoir bi moom amul droit ci présomption d'innocence alors que ñëpp am droit présomption d'innocence kooku ay ay déclaration universelle de droits de l'homme la charte africaine des droits de l'homme ay convention ñu signé yëpp kuñ jàpp même ak nga rey ni téye téye pistolet bi nii mu daanu téye présumé innocent ba baatee bi jeex complètement kon bu dee flagrant délit moom ci lañ nekk affaire yi Ousmane Sonko te moom député xam na ni flagrant délit la nekk ndax coow laa ko topp seddul te affaire bi matul deux jours matul trois jours deuxième jour bi one jox ko convocation yi ko ñëwal lundi mu ne du dem ndax xam naa samay droit moom nga mosul wax droit parce que moom toujours mu ne mu ne mu ne ñu ngi ko bàyyi ko ànd ak état bi kon moom kon Boubacar amul droit moom ci présomption d'innocence amul droit ci immunité parlementaire moom ak ñenn ñi ma àndal daal bu la neexee da ko ànd ak ñoom amoo amoo benn droit amoo droit ci présomption d'innocence ñu naan kii sàcc fi lubal fa xaalis yore fa xaalis naan kat waaw mais il est présumé innocent voilà maître ñu may dafa am benn avocat euh, am benn avocat ci ligne bi maître euh, Théophile Kayosi nekk avocat à la cour inscrit au du Sénégal euh, maître bu dee yaa ngi ñuy dégg yaa ngi en direct sur Walf TV émission balance ñu bàyyi la nga nuyoo